su ñëwee ba fii nii si passerelle bi nii am client bu demandé arrêt ma taxaw di ko wàcce bon bi ma taxawee dama jékki-jékki rek gis ñaari deux personnes génn yor ay xeer ay ngandi xeer ah léegi taxaw jàkkaaroog man face à face may saaga bon bi ñuy saaga peut-être maa ngi gis beneen gain bi yor falaam bi quoi taxawee à côté. mooy cocktail bi mais mi ngi takk flamme quoi. mais man booba man comprendre ma ben ay 7 lan 6 bon bi client bi wàccee nak si la si la benn si la copain bi profito d'aller lancer affaire bi ci biir oto bi bi mu ko lancé si sama tank bi fini ci pedal bi la lancer lancé moom moo ça def bi ko lancer non nak si la affaire bi da falaam bi mu flamé bon client yi di di profité di jaar si fenêtre di wàcc ñom ñu ñu daal di pincé porte bële da iphone kan la da non jol iphone kan la da da no camoufle non sen beudi rek mo lay jox image da bu waxe yang koy deg ni pensé porte bi porte bi ubeku am ni la jël ci ci bir amna jël ay téléphone ak ay sac man bima wacce ma len sen bi ni bi ni yegal passerak bi demone ma len sen sen yegal ni jaar ni def sen yone